mbokk yi ànd ak ñun dañu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen seen leader bii di people euh, di leen baalu àq di leen ñaanal jàmm di ñaan jàlla euh, doole jàmm ci suñu réew mi di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi euh, tey nag ñu seet suñu benn mag suñu xarit koo xamante ni vraiment day kenn ci ñun mu di Bébé Saloum ah fas yéene seq moom waxtaan waxtaanu làmb waaye fas yéene seq moom waxtaanu àdduna tuuti parce que moom souvent damay wax ni bokk na ci ñi nga ci ci mbër yi nga xamante ni nit ñi li ñu xaar ci communication am sax du lamb parce que tey bëri na ci loo xam ni da koy wax xale di ko salanse ak fi réew mi toll euh, ndaw ñi jaxasoo kenn xamatul foo jëm day baax ñu dem taataan suñu micro genre yi nii pour mën a waxtaan ak ñoom mais mbër dama lay bàyyi nga nuyoo ngi lay suivre. waaw asalaamaaleykum. onchu billah bismillah inna waliwu yàlla. onchu billah bismillah inna waliwu yàlla. onchu billah bismillah inna waliwu yàlla jërëjëf Serigne Touba. jaraw lakke Seera Fall Cheikh Abdoul Karim Mbacke naaru Maam Awa Faye na fi yàgg te wér maa ngi nuyu waa àdduna wërgal këpp di baalu ñëpp xaq ci weeru sell wi te di leen baal di leen ñaanal li ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla yëpp yal na ko sama borom bokk nangu. Mhm. di nuyu àdduna wërngal këpp ñu ne ci hôpitaux yi ñu ne ci campino yi fépp fu ay nekk rek man Mouhamadou Seye fekk naa la fa ñu la jàpp loxo ñu la asalaamaaleykum baal ma ak baal naa la yàlla na koor gi koor gi koor gi naka la ko naka naka nga koy dundee. koor kooru mbër. waaw comme nii nga ñu fekkee rek ñun ay Baay Faal lañ quoi du question kooru mbër bu fekkoon ñu bokk ci leneen tamit neneen lañ koy defee mais dafa fekk Cheikh Ibra boo boole ñu ci boppam ñuy taalibe Sëriñ Abdou Karim di ko dund comme ni nga ko gisee rek. dajale li fi nekk jënd ay xéewal. dag ko jaamu yàlla yi dog di fekk ci yoon bi. micro bi ñu di leen ko xam a bàddil ñu di ci xéewlu daal. Mm-hmm. ak waa koñ bi di fi jël see café tey nga nekk mbër bu la neexoon nga ni man euh, quelqu'un là sama euh, soxna ma nga kër ga mais rek nga fa bàyyi ñëw di partager ak Baye Fall yi nii tey tey tey tey tey loolu noonu ban ban satisfaction nga jàmm. waa loolu nga jiital Baye Fall yooyu noonu ñoo ma ko def ndax benn lam du yëngu su ma melee nen ni ba bañ may tudd rek peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca wagg ya ñooñee ma toogandool bokk suñ ñaar fukki yeeg suñ fukki dërëm yi di jëf ngir jaamu yàlla mhm. ñooñu ñoo ma def nii ma mel tey ñoom laay jóg ñu àndandoog man ñoom laay waxal ñu may déglu ñuy wax ak man ma leen di tontu. Mhm. kon ñooñu ñëw ci ñoom war na ma ndax xandoor bu demee ci waar wàcc na mhm. man jàmbu xeebu laa bu ñàkk solo rek bëgg a doon Baay Faal te yombul toog ca kër ga mayewu ko nag yëkkati mbagg mayewu ko da ngay jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi képp moo koy maye looloo waral ka mu demee noonu tey ci côté entraînement naka ngay entraîné ci ak weeru koor bi waaw maa ngi entraîné nag moom maa ngi entraîné boo ma xoolee xam ne maa ngi entraîné ndax damaa dugg ci muni bu difficile muy damaa wax te gor bu waxee yeew mbokk am mbaa mu yeew mbokki jàmbur atamaa bëgg a yeew mbokki jàmbur nag bëgg maa yeew samay mbokk man nag tey xam naa problème laa am xam naa euh, pour ñu nekk sama ginnaaw ko mën a dimbali rek ñu sot waa ji parce que xam naa ne kii ma jàkkaarloo ak moom li ma bëgg du ma ko am <laughs> euh, Saloum tey ñu xaw a arrière tuuti Saloum bi ngay doog a débuté ci sa carrière mhm. euh, mu neexoon lool coow li teeloon a bari dynamique de victoire yi mën naa ne Saloum bokkoon na ci mbër yi nga xam ne heure musaana bëri ñu ni top 5. Mhm. tey moment yooyu noonu lan moo nekkoon euh, Saloum moment yooyu noonu lan moo nekkoon sa secret. mooy bi fa yàlla defoon rek. te jógewu fi ba Saalum ba tey mi ngi fi moom ay ay gu nekk ak la cay xew gis nga kër gi boo joxee jabar ji ke keroog nga ci maandu bu ko neexee tugg suppu kànja bu ko nekkee togg ci so ceebu jën. Mhm. loolu mooy coobare sans moom mooy def bu ko neexee mu ne bébé ñëwal ci jalaal mbaa nga ñëw ci jamal mhm. moment boobu noonu bébé moo woon jógu fi ndaw lu juba jeexul jógu fi. Mhm. yàlla nag ak ay mbiram jaam bu nangu dogal ni man da koy nangu. Saalum boobu noonu woon a a gën a gën a doon léppi Saalum ndax waa Saalum dañ maa yónni yaakamti ma. mais nag li sama borom di dogal jaam bu ko nangu la jaam buy nangu ndogalu sama borom la. muy wërsëg damay kontaan muy naqar damay kontaan. looloo waral que nag li gars yi defe ni tardement la wala dara du sax data d'explication damaa jël lépp jox ko borom mbaar mi nga xam ni tey bu ko neexoon mu def ma leneen lu bokkut ak loola waaw. moment après après victoire yi nga jékki-jékki du ma ne ay tolof tolof yàlla ak ay dogalam nga commencé di am ay défaite moment yooyu noonu nan nga ko doon dundee ci mbedd parce que Sénégal dégg naa ñu ne ñaari duñ ci ànd ak wala wala tolof tolof moment yooyu noonu nan nga ko doon dundee. muy da lool nag foofu lañ mën a xàmmee Baye Fall. Hmm. foofu lañ mën a xàmmee doomu aadama bu gëm sans borom parce que ki la war a ree moo lay ree. ndeysaan ki la war a yab moo lay yab ki la war a waxal moo lay waxal ki bàyyi waxanday wax seen biir kër. moo lay waxal waaye moment boobu bu fekkee sa yaay liggéey ci koñ bi loo mënut a jaar ñeenti sela ba yoon ñu la sa yaay fi def lii loo dundati ñàkk jom boo sulee sa dalu baay mu jot la nga jóg boo moytul nga ëpp sa baay war ngaa def lu ëpp li sa baay def. Mhm. li ëpp li sa baay def li ci jiitu mooy muñ ta ànd yàlla muñ ta ànd yàlla nag daa yombul ndax lu ne ngay gis lu ne ngay dégg mais danga koy muñee xel mu dal. mu ñëwee ko conscience tranquille xam ni yàlla muy borom bët bu rëy bi gëmul nelawul. Mm-hmm. defaloo ko lu tax mu war laa may lépp ba du jeex. Mm-hmm. defoo ko it lu tax du mu la koy may mu la may. Mm-hmm. ndax ki bëgg defaloo ko dara. ki la safaanoo it defoo ko dara. da ngay jël ki bëgg jënde ki la safaanoo dem sa yoon waaw loolu laa ko jàppee man. moment yooyu noonu nan nga ko doon dundee ak sa ak sa famille parce que ku ne xam na ni euh, euh, des fois day metti ñun ñi nga xam ne sax ay mbëri ndaw lañ. as defet la ñu am rek am problème dugg suñu kër ak yow fi nga toll ci làmb moment yi nan nga ko doon dundee ak sa famille. waaw sa parce que boobu mbër bi rek moo doon ñëw. Mhm. bërikat bi kon a safur laa. Mhm. moo doon spectacle. Mhm. fecc mu neex bëri daan. waaw ñu daan ko mu dem. expérience bu xale bi nekk fa. mais bu fekkee dem na ba benn instant. ma gestu gis lii sama ginnaaw. xam ne làmb folowaay ku daan rus. dëgg la damay wëlbatiku nag. jaajuwaat. wéeru ci borom kàttan gi mooy Cheikh Ibra. dëgg la waaw doyloo Sëñ Abdou Karim ñaay jëli ko. waaw ci sama yoon laa nekk nag di dem sama yoon. Mhm. musuma ci yoon bi sax. Mhm. ndax sama yaa daanam wax Mohamed. Mhm. ma ne ko naan mu ne ma mbaam mu yéex te sëf. ne la gënal fuuf mbaam mu gaaw te du dara la sëf. te lu sotti rek am borom. dëgg la guddi yi ah ak guddi yu njëkk yaayam ci man képp ndax kii moo mën guddi njëkkee moom guddi yi te moom moom ba tey. muy sans borom. te jàpp naa ni bu fi sama sa jeexoon ma def ni ñu fi seen wërsëg jeex. Moodu Moodu ji maa ma def leneen. Euh, tey moment yooyu noonu ci sa ci sa côté Euh, moment moment du ma ne ni mu neexee gi mu naqaree mais moment yi nga nekkoon ci ay dynamique de victoire ak moment yi nga nekkee ci ay tolof tey boo ma doon boo ma doon jox benn analyse naka nga jàngee foofu nit ku ñuul ak naka nga jàngee àdduna ak fréquentation nga xam ne bu neexee ñëpp ngay gis daal nga recevoir appel bu nekk nga dem ba d'un certain moment boo xam ne dangay ngay wéet mais da ngay ànd ak sa ngor ak sa dignité ak sa liggéey ndey comme li nga wax. waaw bu fekkee bi muy neex la ñenn ñu bëri booboo leen di dàqal waaye man bi muy naqari moom ay dàqal ndax ci ngay jàngee yàlla ci ngay xamee sa bopp ci ngay xamee nit ñi ñooy ñan ndax sénégalais yi dañoo bëri quoi Sénégal bu bëri moo am douzaine sénégalais moo am xaw ma dégg nga fi may waxee ma dégg. dégg naa dafa amay ay yu foo di toog ak yow nan la yaay sama doomu nday te lay def ñoom ñoo koy rey. te ku ñuy sarax ngay warax doo génne sarax. parce que point boobu dafa am solo quoi dama la ci soxla. voilà c'est parce que mooy da ngay indi melokaanu doomu aadama yi rek parce que boo duggee ci kër. di nga fa fekk ñu bokk ak ndey ak baay te duñ tolloo duñ niroo. Mhm. yàlla ay mbiram noonu la demee. gis nga moment bi ngay nekk ci lu difficile da ngay géey da ngay dangay da soof waaye dangay am dëgg-dëgg yàlla bu dee maxrifa ngay dox. ndax ci ngay war a xamee ni guy gi mooy kan wala ci nga war a xamee addiye mooy kan ci nga xamee ñu la bëgg dëgg nag day metti ñu bokk ko ak yow mu neex ñu bokk ko ak yow. ci moment bu diir boobu noonu léegi ci moment bu diir boobu noonu après yàlla ci la lay dikkalee. ba yàlla dootu la rëcc ba bu moment bu neex bi ñëwee sax dootu la saf. man fi mu toll nii sama xol bi waaw topp ma kurul Sëñ Tuubaa doyloo ma kurul Cheikh Ibra Sëñ Abdou Karim rek laa yaakaar. àdduna nag lu ñëw ma jox ko waa àdduna ndax àdduna ah du nii la tudd. ah du nii la tudd. kenn mënu koo dajal te ku dul umpale dañ lay ragal. faaw nit ku ne am loo xam ne yaa koy jéem a desal. ngir bu ëllëgee mooy doon li lay setal. Euh, d' accord ma ma xaw a pause làmb ji tuuti euh, tey sa vie bu ñu ko doon analyser mu nekk vie boo xamante ne nii dama naan yow missionnaire nga parce que tey en dehors làmb ji am na yenn tolof tolof yoo xam ne xaw na dal sa kaw te ba tey nga muñ ko toog moment yooyu nan nga ko doon dundee ma des fois damay jékki-jékki ma ne Saloum mi est ce que ça va quoi. si ça va damaa doyloo borom te wóolu ay ndogalam. te e, nattu yam daan yan xut bu yaag lam daal di te attanuñ ko ñun jaam yu xeebu yi ay nattu dong la koy xayma te bala laa wóolu ba dénk la mbiram ya faaw nga yanu yan ba aw ca tànki mbërëm ya ma bañ koo muñ du jeex ma muñ ko du jeex ma muñ ko mu jeex ma bañ koo muñ mu jeex kon tey ma koo muñ mu jeex du ma ci ñaaw ñaaw niru sa baay moo gën rafet niru sa xaritu baay mm-hmm. te joom bu juddoon niru baay ja mm-hmm. tuumal nday jeex mm-hmm. loolu laa ko dundee ci conscience tranquille ndax gor bu fekkee nattu daa agsi nga xam ne alalu juddit la. tuuma ñëw nga xam ne alalu gor la man ba ñu ma ko ma tuumaal ndax tuuma day eggali góor la ndax nit a ngi may waxal loo xam ne walaay bu ñu wéetee ba toog buñ man nit yàgg naa toog ak man bu ñu waxee mënu ma béy ba baal ma wax xaw ma woon nii nga mel. koo gis muy dem nag atte ko doyu ci te sénégalais boo tàmm loolu atte kuy dem nee nii la def ak nii la mel ak lii la am te ci dara. <laughs> loolu ji koy sénégalais la. am solo Uh-huh. Uh-huh. yaa ngi ci point bu am solo. waaw waaw parce que sénégalais ñaare tey dañuy gis ni di dem nga koy jugé wala ndiw baaxul wala nga jékki-jékki ñu lay ree te yow nga xam ne jot nga dund loolu. waaw dund naa ko dund naa ko dundee naa ko ci biir ak ci biti parce que damaa yàgg tukki tamit man damay tukki damay gis yeneen xar kanam di gis yeneen làkk di gis ay tubaab di gis ay canadien di gis lu nekk. te te comme ñooñoo ma dul jaaxal wax ma ak ñi nga xam ne yàlla def na ci ñoom laa kepparandoo ba màgg. ndax ji koy sénégalais. maa ngi koy commencé ràññeetle na donte xaw ma ko. Mhm. li tax ma koy ràññeetle mooy xàmmee naa bi niru foo ak xàmmee foo bi xàmmee original bi xàmmee ñiy bëgg a gore te gore wuñ xàmmee gor piir yi xàmmee ñi nga xamante ne si dañuy gore gore lu mhm. toog ci mpenc lu ñu wax nga ne dinaa ko def ak lu ñu wax nga ne xam naa ko mooy yóbbee nit saa su nekk bu génnee ñu xeeb ko mhm. waaw. d' accord ma xaw a pause foofu tuuti ba tey ma ñëwaat ci làmb ji euh, ban combat nga bëre. jàpp ni man mii kat man sax mën naa ko citer parce que <laughs> man man man man man naa dem directement. Hmm. ban combat nga bëri jàpp ni man mii kat téye nañ ma mystiquement man moom mën naa joxe sama xalaat. par rapport xaw ma yow. waaw yow joxeel sa xalaat. non non wax waxal. man jàpp ma damay jàpp ni bu ma war a daanu rek damaa war a daanu daanu. sa combat a Ama Baldé. loolu nga jàpp. waaw waaw kon mun na nekk ba tey. boobu noonu nga commencé sentir ni man mii kat euh, am na ay def-def yu nekk sama yaram. waaw parce que doomu aadama du xel rek la yoon. Mm-hmm. te xel day ñëw ci bu bu jalaal bi ñëw la ñëw ci bu jamaal bi. Mm-hmm. bu jalaal bi mooy bu baax bu jamaal bi mooy bu bon bi. Mm-hmm. léegi nag da ngay xalaat ndax loolu la wal du loolu mais après man pare que ni ma yàlla bindee man ak ci sama tawhid non après man anyway quoi. Saalum gaa yi ñoo remarqué nag ni boobu la Saalum xaw a def ni xaw def na benn jour sax dugal nañ ma ci piège ma wax ci waaye du ma ci wax. damay jàpp ni rek sport la woon war na ma daan daan ma jeex na yàqul ci sama sport dara yàqul ci sport am dara ok. Saloum combat boobu lan nga ci dund ci ay guddi yoo xam ne dangay tëdd sa digg néeg <laughs> tëdd sa biir lal. non loolu moom ñeme moo ko nettali na kon ñu bëri bàyyi làmb làmb moom li li mbër mi dund man damay digal mbër yi bu ñu koy nettali ci télé. dëgg la ndax boo ko dee nettali ci télé. dëgg la lañ ne làmb daa araam dinañ ko gën a dëggal te làmb chaque jour ma wax loo xam ne gars yi dañ naan damay toog ci der di jëw yàpp non. xam naa. damay wax dëgg ji juróom fukk la juróom-ñeent yi dafa dafa araam tifaaxan. lamb lamb. ba pare benn bi dañ koy yóbbu vaar ba xam dagan naab dagan mooy li ngay ñàkk di dundee dañ koy yóbbu sax vaar mais juróom-ñeent yi moom tifaaxan te mu la ci li ma lay ñett nga nangu. waxal ikri bu ne tas na te ñaaw njort ko tas. ikri mhm. bu ne tas na amaa mu am kalan te ñaaw njort dong ko tas te ñaaw njort dañ koo génne ci jullit. Mhm. benn ngi noonu ki ngay àndal moo lay jaay. manager bi signé sa combat sax boo xefee mu jaay la levi làmb day way wuy këpp gaal de su ko way ci defes mhm. ponk boo laal génn ci ay ay affaire yow ta wax. Mhm. ñun nag comme ça borom dafa de ni ñuy déglu duñ bëgg ci loo di dugg ci benn gaam boo xamante ni. daf ñuy canaliser ci lenn mhm. mais li ma xam ci làmb man sama doom du bëree may ànd ak sago may ànd ak sago man sama doom ni ma papa maa ngi jël ngeen am lu bëre ji déedéet. lu tax sama doom jaa nga daara sax ku ma jur muy góor ma jox suñ tubaa ndeysaan ku ma jur muy jigéen ma góorgóorlu ci ba sama borom dimbali ko. Mm-hmm. dugguma am doomi mbër parce que dafa metti dafa individuel de trop. ba pare bëri ay ayib. Mm-hmm. boo daanee yaa fi gën yaa fi mën boo daanoo doo dara. aywaay moment bi ngay xew grand frère yi dëkk ci koñ bi ñoo lay aal nekk ñoo lay ol ku ne ñu la jong ma ñu dalaat nopp loo bëgg yàlla nay jàmm moment bi muy difficile ñu ne moo nu muy def. te moment bi muy difficile nga gën a doon mbër man combat yi ma daanu laa gën a sérieux que yi ma daan yi may daanu laay gën a concentré ci làmb ji laay gën a fere sama xaalis barki alxuraan léegi da ngay daanu après yaay dégg te buñ nee la diwa la ko wax yow doo mën a gëm doo doo a doo bëgg lu rey sa bopp parce que ki ko wax doo ko mën a gëm te tey boo ma dee fréquenté mhm. te nag loolu moo yàq àdduna diw nee na diw nee na kenn diw nee na wala ki diw ma ko wax kee wax ko diw di wax ko kee. Mhm. ba wax jàllaw ba egg foo xam ne borom mënut a romb di ko miim. Mhm. kon jàmm bi day def lu doy la sans borom dox jëm ci rek. ah. parce que yaa ngi wax lu am solo lamb yàqante bi ak nekk ngay dégg. dafa bëri dafa bëri dafa bëri yàqante bi écrit yi sax léegi ay clan lañ ciy dugal booy bi yow kii mënul la kañ la fi ñëw kañ la nii kañ la na te wërsëgu yàlla. ah mais la fois a xoolal combat rek rek ak ak ak Sa Thiès donte ay an lañ. Mhm. mais gis nga affaire dafa dem ba dugg ci affaire famille. waaw loolu du yoon loolu du yoon parce que kuy dundee sa ñaq kuy dundee sa ñaq ngay nelaw du bëgg mukk nga yeewu. Mhm. kuy dundee sa sa sa ñaq ci say nelaw du bëgg mukk nga yeewu te ñun CNG sunu nelaw la yàkkamti wut ndax sunu ñàkk lay dundee ndax li fiy xew lépp moom moo ko waral bu jëloon ay responsable am yu mat teg ay affaire am yu sévère yu bokkut ak daggum xaalis képp mbër yi rek la teg ko ci yoon. Mm-hmm. te violence bi ci ñun lay déparé ñun mbër yi laal supporters yi parce que ñun ñaari compétent yi war a laale buñ ko yombalul ñaar ñi nga xam ne ñoo war a tàccu du yomb si ñoom. dëgg la ñun ñoo koy yombal ngir ñuy tàccu boole koo waaye bu buñ tegante da ko xiiru ñii war a tàccu dañuy gàññi te bu boobaa yuuxu dootu fa am. dëgg la day sees dafay xaj. am na solo. Euh, lan moo la poussé nga jël Baye Mandione parce que Baye Mandione doon na adversaire boo xamante ne nii ak nu mu mën a mel neexu la bëreel parce que gaynde la te der la lan moo la poussé nga jël combat boobu. dama nekk ci yoon mooy li nga doon wax affaire yi dem ba am nu mu demee ma dem wéet dugg ruq mën a kan ba xam man maay kan. wóor na yaa njéeme kan génn pour dem bàyyi ma ñoon traversé ma ñu wax ma ko man leen pour gaa yi xam ni daa lu ma nar jox leen ma ko ma def ko lu ko mbër mës def te jël bi ma ko daan bàyyi ma ñoon mos koo daanu. ko 40 secondes bàyyi ma ñoon ko mës a daan teg na la coono. léegi pour ma wane ne damay dem da cee bokk rek mais bàyyi ma ñoon taxumaa jóg. moment yi koy jël. moment yi ma koy jël maa ngi Europe dem saal bay génn ñu woo pour promoteur bi ni ma bëgg naa sa combat ak Baye Mandione fii Kaolack ma ne ko lu ma neex sama àdduna lay doon parce que doomu Kaolack laa doomu Saalum laa aw ma lu dul Saalum bëri ba bàyyi bëri bëri bu may sàr Lamine Gueye bu Kaolack du ma neex. Mhm. loo ma fay dama lay bëreel. Mhm. waxaale ñaari yoon. Mhm. tey nga jël ko mbokk yi supporters yi ñëpp naan kii day xaru benn ci man. waaw looloo neex man dama bëgg combat tay ma rey ko tay ma ko looloo tax bi ma pare may laaj ba ak Tapha Tine ak euh, Lac de Guiers 2 combat tay mu rey ko laa bëgg nii nii pour ñu xam ne waa jañ defe woon ne kenn mënu koo tee roi de arènes ci kàttanu yàlla bu dee jaam day dund maa ngi dund kenn du ma tee doon roi des arènes incha allah. Mhm. ma ñëw ci combat bi combat boobu sax ñu bari jàppoon nañ ni combat bi commune la ñi naan Bébé Saloum dafa fay dafa fay Baye Mandione parce que Baye Mandione moom làmb ji daa teg level deuxième am di sanab ci ci bi ñëpp ni comme Bébé Saloum dafa fay Baye Mandione rek comme dëkkam la. <laughs> non nag dépassé naa loolu quoi loolu moom bu desee ci sama làmb am naa porte dugg États-Unis Canada Suède Sweden Angleterre fépp yàlla dimbali na ma mun naa fa dugg kon ma dem Modou Modou ji quoi combine du ma ko def mukk du ma dawal góor duma ma combinal góor bu ci desee ma bàyyi dama koo mën daan ko mhm. te mille fois maa ko mën ñu jógee fi jëm maatam arrêt bu ñu wàcc dama koy daan may ko ndox continuer <laughs> te dama ko dama daan mu def lu ma naqari nag daa semblant ba pare wax leneen parce que Baye Mandione li mu dégagé keroog ngeen gis ko ci stade bi wóolati ko waat naan daa def soog affaire xajamal la. waaw parce que loolu da la am fu mu laal par sogu kanam loolu du sogu dara soog su sogo woon du tala ñëw stade. Mhm. man su ma sogo woon du ma ñëw stade fooyeetuma làmb bu sama baaraam bii di métti du ma ñëw. Mhm. bu njëkk dama daan gaañ sax di ñëw làmb ñi may daan ñëpp damay ñëw indaale blessure. Mhm. xam naa ci dara contre maak Franc yóbbu naa zone bu métti xam nga ci dara. ba ñëpp naan ma fombal combat man leen damay dem. Mhm. ndax am nay temps du ma sax entraîné ji ndax day metti mhm. mais sama gëm-gëmu gëm ni maa mën Franc tax ma dem bëri jeeg moom est ce que bi ma daanoo yàq naa yàq naa loolu. est ce que dëkk nañ ma micro ma ne leen sama tànk day metti déedéet. Mhm. ak yeneen combat ak yeneen combat sama combat ak l'an 2000 sama faar gi moo toj. maar la suñu entraîneur mi ngi may dégg gars yi bi ñu ne dañuy bind man leen kii bennum coow bennum jooy la dama koy jooy mu jeex ndekete yolleeku nañ wax ko ko sama faar gi day metti boo seetloo combat bi biñ njëkkee jàppalante génnaat bi mu changé pied ma changé pied bi mu ma takkee daa wàcc samay tànk. Mhm. ma bëgg génn saako yi mënu ma dem boobu mënatu ma nooyi. Mhm. mais ndax dañoo dégg ma xajamal ko. kon bu ta bu daa bu ma ko daanee jël bu ko nit mës a daan dama ko ëpp doole mille fois te bu ko neexee bu promoteur bëggee arène nationale wala seen biir néeg mu tëggaat ko ma daan ko wan ko ne ko maa la mën ndax mu noppi. te combat boobu li ma ci jaaxal maa ngi la koy wax léegi da nga ci da nga ci nga jël coup. ku ku voilà ku ku def soog dina dóor coup bu dal boobu mais ki mu ko dóor fan la nekkoon quoi ba pare assisté taxaw di ko xool ñu ñu ñu soccoo ay kurbañ man ak moom mënoon na ko gone gi daa fees dell ak doole ku boobu ma jël ci baamu joon ku ko jëloon jànnaxe. Mhm. da nga ma dóor bu affaire yi naaw man après laa koy doog laay doog gis affaire man boo ma joxoon micro ci saa damay waat ni dóoruma ndax yëguma ko. Mhm. kon am naa doole ko mhm. te damaa liggéey damaa dem Espagne ñaari salle laa doon entraîné barke alxuraanu karim ñaari salle yu bokk yu différenté saalu MMA ak beneen saal di def sport boo xam ne xam naa ni non làmb ji nekk sama cere cëriñ dama koy jël. Mhm. loolu laa gëm baa ma doon traversé ma faxas ko te balaa ñu ko xam nañ ma jox keneen. keneen foo jëm. man ci kaw laa bokk waaye bu leen neexee ma raatalawaat ci suuf dem comme dañoo sama yow bëgg carrière bi gën a gëdd rek man tayalu ma naa raatalawaat ci suuf nañ ma jox yaawu jaal suba amul problème <laughs> mais bu après gars yi ñooy xam fi ma bokk. Mhm. Sëñ Tuubaa dimbali nañu di ñu bu baax. Mhm. yàkkamtuwuñu dara. Mhm. mais daa am lu ñu bëgg a wane donc moo tax ñu bëgg combat gaaw. Mhm. mais bu dee teraanga suñ tubaab ñuy teral. Mhm. musuma ñaan kenn dépasse. fu ma dajeeg samay rakk teral leen. dëgg la waaw présent. Euh, tey nga bëre sa dëkk nekkul pression. déedéet xamul tax nekkul pression damaa xam sama boob te damaa bëggoon sama waa dëkk xam ki ñu gunge ku moo tax keroog maas bi kaw Kaolack génnee daf ma dépassé addi yaa ngi nii doy na ma seede. Mhm. la génn Kaolack ñoom da leen a dépassé. baa ma ñoon jour boobu amuloon benn sens sama rakk bu jigéen xadi su ma ko ngeboon da koy daan ndax décision bi fa mu moo sori. Mhm. Ah. Mhm. te Saalum ma woon ku xam Saalum xam nit kuy liir làmbam dina xam ne Saalum mi ñëw keroog daa pare pour làmb si léegi ndax bërikat bi yeew naa ko ba mu ni ngodd ma jox jàbb yaay buur mu denc. mais lool chaque jour yaa ngi koy wax. mbër mi moo génn ndax mbër mi du bàyyi dara la ma doon bàyyi ba tax nit di ma mooy lan laa boole ci yëf yi lépp. mooy lan lépp lu mbër di def dama koy def. lu mbër di def rek léegi dama koy def. kon làmb nekkul dinaa entraîné am doole. Mhm. dinaa moytu dina lu bëri sama yoon dootu ci nekk te fu ñu dugg samedi dimanche ak lundi fa la may fekk yaa ngi wax dinaa moytu kon nu mel ni làmb dafa xawal am tuuti fiiraange bëgg naa nga din ma ci ay leeral parce que li tax ma bëgg insisté foofu noonu mooy côté boobu dafa mel dafa xaw a ci xaw a moytonte bi ci xaw a yàqante bi. waa c'est parce que bët li koy fàtt du ko gis te ku jegewul mënu laa rey da ngay gis igri diw moo sàcc ngembu diw diw moo nangam diw moo nangam diw moo nangam. Mhm. kon loolu boo wul ba bokk ci piège boobu noonu maanaam du gën quoi. Mhm. léegi mévier wu xet dugg ci ba nga lakkaleewul mhm. ndax kër picc ah mhm. bu baaxooñ këram yóbbaale ko mhm. këru bu lakkul rek baaxooñ a takkul buy la baaxooñ ñu tàkku di ko yóbbaale voilà d'accord euh, xam naa foofu noonu laay xaw a euh, jeexalee ci làmb ji mais tey boo ma doon boo ma doon boo ma doon xaymal bi nga daanee nit ñi commencé ñëw ku nekk di la woo par rapport ak démb ak tey naka nga jàngatee foofu taxawaayu nit ku ñuul waaw taxawaay nit ku ñuul mooy dama xam ni mooy li ma la rek douzaine nit ku ñuul kee ñëwati rek ki la saaga nday léegi mooy ñëw tàggatal la sama <laughs> loolu ngay dundaat rek léegi boo demee ba bokk ci système boobu noonu après dara dootu la jaaxal. Mm-hmm. man bugguma sama soppe jege ma bugguma sama noon sori ma olof nag laa wax xaw ma di nga ko déggam déet. Mm. bugguma sama soppe ma waaye bugguma sama noon sori ma ndax bu ma sama noon jege ma teral ko te bu ma sama soppe soree ma dal sama sama xel dal ndax ki bëgg bañul mukk lu mu sori sori. man noonu laay dundee dara jaaxaluma lu ñëw attan naa ko muy bànneex di musiba lu ñëw attan naa ko ndax lu dul sans borom neen la. Mhm. parce que lii dafa neex quoi. lii dafa neex dëgg la dëgg la neex quoi. dëgg la ndax nit ñi moomoo leen quoi. Mhm. lii rek nga leen mun a wan benn benn solide ñu ànd ko ak yow quoi. Mhm. ndax ñoom ñëpp ay borom kër lañ. nekk ay Baay Faal xam naa foofu laa jeexalee sax muy sa relation ak sagaay gars yi. waaw maa ñoom dañuy ànd ànd bu sincère ànd bu rafet ànd ngor suñu dërëm yeeg suñu ñaar dërëm kenn xàmmeewu ko. li may dogal ci kër addiya dafa da ko fa dogal man loolu lay dogal ci sama kër suñuy grand ñëw quoi fe ñu def wàcce seen bopp comme suñuy suñuy morom. te doon suñuy mag doon ay yor ay expérience yu yaatu. kon munuñ def lu dul fil bii rek. nekk bokk ndey bokk bàyyi. voilà loolu lañ xam di ko dund quoi. lu ñëw rek ñu cons ko quoi. d'accord xam naa fi may fi may jeexalee sax muy am na benn message boo xam ne du ñàkk di nga ko lancé donte Sénégal fi mu toll nii wax fi daa xaw a métti. mais message boo xam ne di nga ko lancé ak tolluwaayu réew mi aussi. waa tolluwaayu réew mi day dama ciy bëgg a wax ba xaabaa bal waaye dama ciy néew kàddu ba mu toll ni bal dégg nga li ma la wax. bu ciy bëgg a wax ba xaabaa bal dama ciy néew kàddu ba mu toll ni bal. Mm-hmm. wax ci ndax dina tax lenn jariñu ndax ñenn ñi nee nañ sëriñ si wax nañ sëriñ si ëpp bàqaama. Mm-hmm. ñenn ñi nee nañ borom garaat yi wax nañ est-ce que ñooñu noonu euh, mënuñ nañ dara kon man bu ma waxee. mun naa yóbbee sama bopp ñaar doon te ragaluma ko. Mhm. ki ma ci bëgg ak ki ma ci bañ parce que su ma waxee rek dana am ku ma am ku ma mhm. kon du jar ma ciy wax. Mhm. wala da bëgg ma wax ci. ah boo ma waxee ma jël de. d'accord li ma ci mën a wax mooy. àdduna ñu ni neen la te nañ xam ni kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def boppam. li nga ñoddeek waa koñ bi di leen ko baab bañ dénk la ko. buñ la ko joxee du sag moomeel ndax bu la yàlla dénkee wërsëgu kopp jox la paan nga duy ba mu fees dugal sa rondal li ci des boo ko sangoo foo toog ñu di la biiw ndax moomoo ko. nanu génne li askan wi moom jox ko waa askan wi man xeexloowu ma kenn xulooloowu ma la kenn waaye bëgg naa sama réew ñoŋ man sama moomeelu réew dénku ma ko Jean nii Paul sama waa réew laa ko dénk kon na ci waa réew mi ñoŋal. Mhm. muy waa parti opposant waa opposition aw ma contre man parce que loolu du sama rôle sama rôle mooy doomu réew mi laa te man président réew mi laa man. Mhm. su ma gëmee ni maay président réew mi du man maa yàq réew mi. Mhm. lépp lu koy defar maa ci lépp lu koy yàq bëgguma ko man leen nañ delloo si xel yi te xam ne lu fi waay nekk rek nit nekkoon na ko poste bu fi nit am rek nit a ko doonoon nga remplacer ko te war ngaa gëm ne ala kullu aal dinañ la remplacer. Mhm. foo toog rek muy poste yow xam nga ni nit a la fa ndax àdduna beesal ak yeesal la fi nekk tuxoog tuxal ku bees ñu yeesal la ku tuxuñu tuxal la mhm. nañ delloo si xel yi te xam ne doomu aadama yi waruñ nangu kenn di ci xureeku wala ma di dee mbaa muy gaañu te buñ delloo si xel yi toog consensus waxtaan loolu day am mhm. te ñu ngi koy interpellé Macky Sall direct ni ko na xoolaat toogaayu réew mi woo ñi mu war a woo muy mag ñi woo sëriñ si waxtaan ak ñoom ngir réew mi dal am jàmm ndax réew mii ma gis yëngu na te lii xeeñ neexu te kërug kërug baaxooñ wallaahi buy lakk du bàyyi kër picc te bu ñu seetaanee ba liy xew-xew réccu day fekk jëf wees kon nañ wàcce tempérament yi ñoom ñëpp. Mhm. waxtaanee ko lu mu métti métti ci waxtaan lay mujj dund bu yokk bi yëpp Ukraine ak Russie moo ñu ko yóbbee te xoolal ñaata kilomètre lañ am ñu ak ñoom. Mhm. comme foofa moo ñu laalaale mooy sama olof yi bu këru tan lakkee du bàyyi góog picc. ndax am na ñoo xam ne ñu ngi toog doon ay élément neutre wallaay bu bal yi tàkk mun na laa rey bal perdee lay rey. Hmm. ndax nit dee na ci coow lu lu yoonam nekkul ba taay. Hmm. boo ko fekkee wul it nga ko. Hmm. man fekkee naa ku ñu rey koo xam ne yoonam nekkul ci coow li ki daw jëli paaka daa ñëw dajeeg moom defe ni moom la ni ko ko dabax mu dee. ci sama kanam te daay ñëw fekkee taxaw di seetaan wallaay loolu fekkee naa ko. léegi nag kon calculeel kooku dara dara du bopp moo dul may mbagg borom parce que coow du yam ci jàmm du du am ci nit ki. kon nañ delloo si xel yi xam ne réew mi ñun ñoo ko moom te dañoo am ay valeur yoo xam ne waruñ ko yàq. Mhm. bu ñu demee ba nguur gi dégloo tuñ mag mag ñu baax ñi day metti bu ñu demee ba opposition bi dégloo tuñ mag ñu baax ñi day metti mhm. te suñ mag ñu baax ñi lañ am bëgguñ ko leen ko xeebal. Mhm. bëgguñ ko toog ci réseaux sociaux di saaga kilifa diine yi. wala kilifa aada yi parce que ñoo fi sunub ñàkk te àll bu fa nekk la fa ñu la dim ñàkk. ma bëgg daal ñu delloo siwaat xel yi bu baax a baax a baax te xam ne àdduna amul solo man aw ma lu ma ciy wax aw ma ci bu ma ciy gañee man ba na ko ba état fayu ma ku dul état fayu ma. Mhm. lu ma am maa koy ñaxal mhm. suma njaboot ak sumay bayfaal. Mhm. ok kon li ma war a wax mooy ci réew mi laa toog te maay président rek man koñ bi ma nekk maa fi monsieur le man maay monsieur le maire ci koñ bi ma ne man maay éduqué man maay jéem a génn sama ñàq ma gars di ko def ci jaamu yàlla kon maa fi monsieur mhm. te lu gën a rafet gën a yaatu ñu gën koo def mhm. koñ bu ne boo ko jàppee noonu day rafet dëgg la boo yi fi ñu jàpp dañoo ayibu ñu xëj leen suñu wet jéem leen a fóot pour mu deñ nit ñi dañoo am njàmbaar ñu di leen kañ saa su ak di leen dolli doole loola la ñuy doxee loolay defar koñ mhm. d'accord am na solo ah di nuyu di nuyu bras droit maire Nokoy xam nga maire Nokoy léegi daa am ñoo xam da leen yónni fii ñu may may contrôlé di nuyu waa waa kër maire Nokoy waa waa waa ndekki la ñoom Ayda Mbène xam naa fa la ñuy dem ñu ma jaxaseeg moom Ayda Mbène sama xarit la mën na ñoo jaxase Saloum tey sa ka gu mujj ci émission bi. mooy di santaat bu baax tey gërëm. Mm-hmm. ndax nag ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. maa ngi gërëm directeur de l'emploi Pape Modou Fall. Mm-hmm. suma mag suma xarit. maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. di gërëm maam Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse. Mhm. waaw sama combat bi jàpp na ci bu baax di gërëm suma mag suma xarit mu Mamadou Bara Gaye mhm. monsieur le maire baara gay di ko gërëm bu baax. Mhm. jàppale na bu baax di gërëm suma gaay nag ndax ñii lama ma yàlla booleel. Mama Koura xam yaa ngi dégg Addiya Iba Lamine. Grand Mbay Saara ñëpp ku lim da ngay juum. xam nga ku lim doo matal kon maa ngi leen di sant baax di leen gërëm di gërëm waa Kaolack bu baax a baax a baax sama mag baay Ndaw soo ko tegee ci loxo mu séddale ko sama xarit baay Mor Sène boo ko tegee ci loxo mu séddale ko. Mm-hmm. suma mag Diaz Ablaye Ibou Diédhiou Dame Sour Baara Diop. ñëpp waa Kaolack maa ngi leen di bëggee bu baax a baax sama mbag baag Baye jambaar Curaay di gërëm waa Malika Touba Malika gi ñu nekk ndax Malika 2009 laa fi ñëw ba léegi dooruma fi mag saagoo ma fi gone ndax loolu moo ma war sama lendemain combat Ama Baldé ba léegi maa ngi Malika. voilà ci loolu laa nekk kon waa Malika sama nit lañ rawatina waa Caaroy mi nga xam ne nu mel ñoom la. Mm-hmm. maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm suma rakk mbëri fi ne. Mm-hmm. ku ci nekk rek maa ngi lay gërëm di la sant bu baax parce que ñu ni neen la quoi. yow tam guy gi suma rakk nga suma xarit nga. maa ngi lay gërëm di la bëggee lu bëri. Mm-hmm. di santaat Serigne Abdul Karim Mbacke bu wér naaru di ko ñaanal fa di sant sama Serigne Serigne ñëpp di gërëm samay soxna di leen sant bu baax ndax nag gis nga état bi nga gis su ma ayee Màkka ñu feccali su ma ayee Medina ñu feccali. tey fa ayee yàlla tey Medina laa ayee. <laughs> am na solo ah. moom laa dalaloon fii sunu kër di people 221 di leen jox yeneen di daje ci sunu yeneen émission euh, jërë ngeen jëf.